parle de retrait de passeport pour un ancien ministre j'ai bien aimé bi nga ko waxee peut avoir mais peut avoir est-ce que daf. non non je sais. texte je sais je sais que vous avez cité le texte. Mm. mais peut avoir soo ko xoolee ba ci biir a biir. peut avoir dans quelle posture et dans quelle situation est-ce que peut avoir signifie doit continuer à avoir ou bien peut avoir dafa signifier da ngay déposer waat ci statut ancien ministre. tout à fait te man je pense que mm. ci français bu yomb. Mm. peut avoir on dit un ancien euh, euh, ministre peut avoir il faut prendre ta position de ancien ministre. de déposer waat pour amaat passeport diplomatique. exactement nekkul danga nga nekk ministre pare nga daanu ou bien ñu dindi la sa poste. Mm. le passeport bi ñu la joxoon dans le cadre de système fonction de ministre mënutul continuer si on. juste euh, su may jël corrélation wala may jël exemple au-delà du passeport diplomatique. dafa am avantage yoo xamee ni ancien ministre dès que ñu ne la bàyyi nga euh, euh, def nga passation da nga koy perte ba ngay def passation oto ba nga yoroon en tant que ministre ci saasi UGF e bi da lay laaj caabi yi récupérer caabi bàyyi ko foofu bu dee dañ koy mm-hmm. joxe feneen wala dañuy dañ koy réformer ak lu mm-hmm. mën a doon ca yow boo nekk ancien ministre booy dellu booy génn boo defee passation du oto ba nga yoroon ngay dugg de. président la république makis euh, Macky Sall ba mu joxante lenge ak euh, le président Bassirou Faye mais dugul auto bi mu duggoon de beneen oto la dugg président Bassirou Diomaye Faye ba ñu ko tabbee ba mu dem waat oto bi ko indi woon sikat du moom ko yóbbu yooyu yëpp dafa am ay avantages yoo xamee ni da ngay am ci saa si wala nga perte ko ci saa si xam ban avantage donc ngay lañ lay bàyyil yow en tant que ancien ministre te pendant six mois mooy kër gi nga dëkkoon logement bi parce que dañ lay permettre nga mën a wut feneen mais tu es devenu ancien ministre perte nga lu baari ci ay avantages yoo xamee ni sa fonction moo la ko mayoon mais comme li euh, Barka wax mën nga laajaat ne ni man léegi ancien ministre laa mais dama bëgg am passeport diplomatique jaar ci démarche yi nga war a def te jàpp naa ne duñ la ko xañ ci yoon duñ la ko xañ dañ naan kii il a été quand même parce que euh, Mankeur Ndiaye ancien ministre des affaires étrangères mais man du ma ko xañ passeport diplomatique parce que bu dul dara yaa gën a représenter Sénégal te fu mu mën a dem tamit mën na fa continuer de représenter Sénégal te comme le président Bassirou Diomaye Faye l'avait di compétence c'est pas parce que fal nañ la fenn que ngay soxla dafa ne compétence su mën a bawoo ci réew mi nga bokk ci man bañ a bokk ci man mën naa la soxla ñooñu dañ leen jox bu dee euh, ñu ñuy soxla ci ñeneen dañ leen jox passeport diplomatique damay joxe benn exemple bu président euh, bi passation amee diggante l'ancien président Abdou Diouf et le l'ancien président maître Ablaye Wade maître Ablaye Wade falu na toog moo am benn sommet bu war a am francophonie mais dafa yónnee ancien président Abdou Diouf ne ko demal ma kooku xam nga buy dem passeport diplomatique avantage wu ancien président la yore donte sax c'est pas pareil parce que ancien président de facto am na yenn avantage yoo xam ne da koy am sur le plan salaire sur le plan euh, ba ci ay euh, ñu lay jàppale secretaire garde du corps aide de camp ak yooyu yëpp loolu dañ ko dugal et ça depuis fort longtemps mais un ancien ministre bu dee ñëpp la ñu war a jox même boo laaju jox la mais li fi nekk ci passeport diplomatique waxuma deux cent yu réer de li barka di wax mais xanaa war nañu mët ay cinq cent ndax diggante ministre yi ñu fi am deux mille waxuma avant de mais deux mille ba tey non euh, bari nañ trop trop trop si c'est de facto que tu as un passeport diplomatique euh, risque de poser problème. Biram pour pour pour reprendre quand même excusez-moi Thiala. Uh-huh. Euh, les gens ne veulent pas respecter les textes y a li nga liir noonu ci loi boo xam ne moo régir le passeports diplomatiques c'est accessible à tous les Sénégalais et vous me permettrez dans un passé récent j'ai été le directeur humain d'une structure de l'État quand on fait les passations tout les tous les avantages bi nga xam ne dafa lié sa post danga koy perte et je pense que là ñi nga xam ne ñoo def passation comme ISE ñoo ci war a gën a bàyyi xel ndax ñun en tant que en qualité de de RH sooy defal nit ki passation même la carte d' assurance si le DG ne dit pas laisse-lui avec la carte tu lui tu la carte maintenant ñun ñu nekk fii ay ay sénégalais nga ñëw passation l'IG e te demande les clés de la voiture on te donne demande même les clés même du bureau tu dois les mettre sur la table c' est après que tu remets ça à ton assistante mm-hmm. on te demande la carte carburant vous mettez ça sur la table on vous demande tout on vous demande tout mais en vertu de demande rendre compte vous donne les mais ça passe pour diplomatique nga téye ko c'est très simple comme bonjour on vous a dit que vous, pouvez déposer mais allez déposer mais avec votre statut dans ces ministres mais le passeport diplomatique du ministre vous ne l'avez plus parce que vous n'êtes plus ministre voilà. kaw 2012. xam nga Sénégalais yi dafa fàtte rek mais Birahim mu ngi koy fàtte léegi c'était c'était le même cas parce que bi Macky Sall ñëwee automatiquement dafa am benn ci li nga xam.